Sénégal France amoon ñu nag ñi nga xam ne ñoo ëmb xale yi muy Aliou Cissé man Tony euh, Oulamine Diatta aujourd'hui ak ñi fi nekkul ci seen xel nekk ci ñun dañu am mission mission bi modi li ñu defoon Sénégal France am nañu envie yóbbu leen ba nga xamni ne ñoom daal def li gagné Angleterre pourquoi pas dem demi-finale et pourquoi pas nekk équipe arrivée bu ñu ko jouer finale loolu ci mission match bi nak dina métti ñëpp xam nañ ni euh, match goor la góor la koy gagné du ay footballeur ñoo koy gagné ay goor ay jambar ñoo koy gagné xeex la xam nañu anglais seen mentalité du lu bàyyi mais ñun nag dañ leen di wan ne tamit ñun sénégalais gaynde lanu te gaynde teranga ci dañ koy fekk ëllëg comme ni ma ko waxee woon rek jàpp rey ko fàdd ñu ñëw indil ma ko ma saafara rek